na war na laa a xaj majorité bu ñu gisee comme ni Famanta ni revue du titre bi ñëwee léegi lan moo ci sa xam naa sa sa sa bokk Pastef day feeñ ci day feeñ ci Famanta di te tu n'as pas parce que tey tu es une ah, présentatrice actuellement mi ngi commencé feeñ ci sa ci sa mm, euh, ngi feeñ. Ah. Euh, tey moom yow a kii sax. Euh, mais xam nga li am solo idée mooy. Mm-hmm. ñoom fi ne dañoo war a liggéey. Mm-hmm. bu mm-hmm. parce que les résultats provisoires rek la mm-hmm. bu conseil constitutionnel ñëwee ba définir li nga xam ni mooy euh, dernière euh, euh, lay li ci Sénégal war nañ toll ak ans ci kanam politique bi teg président Bougane mhm. def ko grandeur la mhm. kon ñoom woo nañ leen ci jàmm ñoom opposition mhm. te noonu lañ leen ko defaloon woon président présidentielle la rekk nañ jël xeex bi ak xuloo bi ak waxante ñu ñaaw ji tege ko na te liggéey te xool ci seen biir ñoom ñi nga xam ne ni am nañuy diplôme te amal réew mi njariñ ba mën a dekkale réew mi fi mu nekk parce que réew mi dafa kale day mel ni bato bu doon daw ba ci tefes mu wéeru fa taxaw parce que taxaw na moom waxatuñ ko dañ naan bato bi kay moo wéeru léegi ci tefes gi taxaw li des nag mooy wax naa ko fii benn du ñaar bu ñett borom caq doo xeex ak borom baatub neen laaj nañ réew mi nit ñi jox nañ leen ko laajaat nañ leen assemblée jox nañ leen ko à quatre-vingt-dix-neuf pour cent léegi nag li ci des mooy liggéey fas yéene parce que am na koo xam ne ne politigul bokkul passé bokkul fenn mais ci réew mi la ne am koo xam ne ma nga ca bitim réew kee nga France kee nga Asie nga feneen te seen réew mii lañ bëgg mu dox bañ ñëw investir seen réew mi lañ bëgg mu dox parce que nii ñuy émigré di dem ci àll bi di dee bu leen leeree ne am nañ ci lu ñu jàpp ci dëkk bi ñu toog xëy suba di liggéey di yeewu di gis seenu njaboot kon lay jeex na actuellement amul benn titre benn benn benn journaux amul benn ci réew mi boo que ce muy ko xam dañ ko jàppe woon opposant wala muy ko xam dañ ko jàppe woon neutre kenn ku ci nekk titre nga ne Pastef moom dafa raafale lépp comme nag léegi li ngeen laaj nit ñi jox nañ leen ko li ci des mooy jéem a liggéey dekkale réew mi ku nar a coow sax nga raay ko mu noppi ba nga xam da nga ko naan fii ak quatre ans soxlawuñ xeex soxlawuñ demale fekk fekkalante loolu mooy logique bi ñu war a nekk parce que tey kilifa diine yaa ngi ci réew mi dem nañ ba amatuñ droit wax dañu leen a kale ci benn situation am na ñoo xam ne ay ay ay civil lañ ñoo xam ne bokkuñ sax kii dañuy xool rek ku leen kii rek ñu dem joxee seen carte c'est-à-dire il faut ñu woo nit ñi ci kaay leen nu liggéey EDEA yow kat bokkoo Pastef waaye am nga entrepreneur boo xam ne am nga entrepreneuriat xam ne bu baax la soo ko doxalee di am san personnes yu liggéey ci sa ginnaaw ñooñu dañ kii seen bopp dañ ne idéal bindal indi parce que tey maa la ëpp doole moom kenn dootu ko coowante ci dëkk bi maa leen ëpp ay kii kenn du leen ko coowale yàlla nag ku muy xeexal doo xuloo ku yàlla di xeexal doo xuloo tey par exemple nit ñi jox nañ leen li nga xam mooy seen confiance total ñu laajaat leen ko ñu jox leen ko te c'était difficile parce que tey yi ñu doon génne mënoon na leen a gàllankoor ci lu baree baree bari comme nag ni parce que souvent dañuy wax ne population bi ci boppam ñoom ñooy ñooy état ñoom ñoo ëpp doole état suñ la fi bëggee teg force da ngay dem buñ la fi bëggee teggi force da wàcc. comme que nag ñooñu nag ñoom ñoo maasee àndandoo ne la am téel yëf yaa ngi nii rikki waay ku ko nar a xajamal sax nga bañ. tey mi def na ko président def na ko maa ngi woon këram démb def na ko te bi mu koy def da ko def ak grandeur wëlbatiku dugaat biir buróom defaat vidéo daal di wax ne taxaw leeral ne. ñii kat wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di félicité mais nañ leen woo Abdoulaye Wade da daan dugg ci gouvernement Abdou Diouf liggéeyal ko ba élection di bëgg a jub mu ñëw déposé ay démission dem campagne yi bu jeexee buñ ko waatee mu ñëw tey il faut tamit ñi nga xam ne dañoo nekk ay partisans que ce soit muy euh, Benno wala muy APR wala muy beneen parti bu mu doon ñi nga xam ñooy militants yi saa à dire ñu jël seen i ngànnaay ñoom it wéer parce que kat maa la man moom ci mbañ gàcce mi ci bopp nga koy wane te ko liggéey doo nga fi des nag soxna Dia fi mu ne nii comme ni ñu ci mbañ gàcce gi lañ koy wane ci noonee rek ma bàyyee Famanta ak invité am mu fas yéene yaatal rek mook sëñ Moustapha euh, soxna Idia merci beaucoup <laughs> mais tey je je pensais que ni am tey ñun ñëpp ay invité la ñu war a doon <laughs> waaw ndax tey jii moom euh, li li li soxal euh, réew mi la ñuy waxtaanee mu nekk sujet boo xamante ni démb gars yi def nañ ay débriefing waxtaane nañu mais le futur du Sénégal fan voir euh, une question moi-même je me le pose parce que euh, beaucoup quotidien le titré sur Idia euh, dañu dans Sénégal deselatul dara dara Ousmane Sonko Sénégal dara ki nga ne Faye le président de la République benen bi nga jëlaat ko def ko jël li nga di majorité à l'Assemblée nationale te majorité bi nga xamante ne moom am actuellement euh, man je me dis que ni en revisitant l'histoire politique du Sénégal euh, ñu jugee ci ay 60 députés il dans 80 députés à l'hémicycle 100 députés à l'hémicycle 120 députés à l'hémicycle 140 députés à l'hémicycle 165 députés à l'hémicycle euh, pour moi, euh, koku nonou tay le plus même des sièges à l'Assemblée nationale koku la bobu ben la ñu gis fi lo ko gis bien vrai que à ay il amon na ay euh, ay tension yu monté won mais ba ñëw ci élection sénégalais dañu mature que je salue hein, la maturité du peuple sénégalais señam man askan wi ma yor dama len naw xam lu ma naw askan wo xamantene dafa taxaw taxawayu xam bopam man ken moomu ma bëgg def def manam xeex beeg xuloo bi ba vote ba jotee ñu xam ne que ne fii nag la ñu war a sànni suñu xob pour tabb ku ñu war a jiite wala ku ñu war a représenté ñoom def nañ ko ca nañ ko bëggee xooluñu condition kenn xooluñu kenn dañ ko def ci nuñ nuñ ko war a defee et loolu c'est une maturité xuloowuñu xeexuñu pourtant ñu bëri nag jàppoon nañ ni que ni pour ces élections là y aura au minimum des antécédents yu ñeel wàllum violence parce que boo xoolee affaire du tey la tàmbale depuis 2021, la am violence au Sénégal dafa extrême dafa bari kon Quand nous avons fini, nous ñu voté ci peuple bi exprimer sa volonté c'est à saluer Je nak que li am ba dess que ce soit muy le peuple sénégalais le peuple dañu dañu sonn le peuple dañu jël espoir ñu nuyé ko ci ay nit gis nga the hope comme ni anglais di waxee dafa am solo manam espoir ñun suñu dund bi ni xam nga lan moo ko lal espoir xob yaakar yaakar nañ ni ñun buñu déwé dem aljana yaakar n'a ni suma ñëwé ñëwee liggéey fii nii bu dé dina fayéku yaakar la

Nous avons un suivi une évaluation on peut beau faire des projets des plans mais s'il n'y a pas ce suivi là et ces évaluations là maanaam vous def nañ émission ba va un débriefing émission bi lan une erreur ah? un budget pour le Sénégal budget est fan lay nan utilisé utiliser budget donc dañ koy xaar

dooleel ñi di baykat yi dooleel ndaw yi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo nekkoon ca naaj ba di ànd ak Ousmane Sonko dooleel ñi nga xamante ne tey jii nii dañu amoon dañu perdre espoir doon jël gaal gi pour dem ñu dooleel leen ngir ñu mën a tabax réew mi foofu laa doon daanalee soxna Idia voilà.